barami Baara nee na réew mi moom ak lu ñu mën a wax rek ñu ngi koy liggéey te réew mi dal na réew mi moom dal moom defu ko réew dal defu ko Ousmane Diagne daa ree ñu ko. Ousmane Diagne est arrêté pour avoir partagé sur sa page Facebook des unes de journaux satiriques avec en en-tête trois émojis de sourire ci tënk Ousmane Diagne dafa tasaare ci page Facebook am ay journaux yoo xam ne kafak ree moo ko tax a boole ko ñetti gay bop nit yu siiñ di reetaan ñi jang droit pénal yépp bu ñu déggee dinañu am gatché ci procureur bu ñak fayra bi amadou Diouf gatché la pour bép juriste wala képp ku mbir yoon intéressé voilà des personnes sans vergogne des lèche ngir bëgg rek maral président bay tankam bëgg dégg waaw goor tax ñuy doy dil sen bop ak sen jabor ci diggu Sénégal gépp Papito Kara da doon reetaan loo ñu jàpp ko. benn mbir dafay am mu def ko revue de presse ngir reetaan loo ay aboné bi coowul journal L'Obs jibee da ko de presse comme ni mu ko daan defee ci yeneen cas moom créewul journal montewul bindul gaa yi bind tasaare moom mu jël daal di koy de presse. ca gox bi nga xam ne moom moo di goxu Fall Médina ba mën na la waa Benno Bokk Yaakaar ñoo fa doon reyante de aha maa wax te nag kaay ma wax la bi nga xam ne moo leen luyee woon siège nga taxaw njatt leen neen na yëpp dinañ ko fay ndax nag xeex dëgg lañ doon def seen biir kenn mayul ta moroom dara maanaam ñoom ci seen biir ñoo doon reyante waaye na kaay ma wax le gis nga siège yooyu ñu damm maire njaago bi nee na duñ leen may dara dinañ ko fay benn par benn obsutal la geneen wet daan na xawma siège yooyu dinañ ko fay wala déddaw nee na aliment bi nga xam ne moom la ginaar yi daan lekk saako bi ñu ko daan jaaye quinze francs léegi dem na ba si vingt-deux mille francs yaa Cheikhu Ibrahima Baba Lamine Diassé maa la ko wax de moo taxit de jamono ji ginaar yi si boppam dañoo grève seen nen yi si boppam la ñu téye omelette gisatoo ko fi nenu baxal gisatoo ko fi waa mais ndax lii dina neex ginaar yi mel na ku naan ñu bu ñu wàññiwul aliment bi duutu ñu nenati donc lii la Papito Kara def dëkk bi nga xamante ni dañuy bañ ku ree jàpp nit tëj parce que dafa reetaan doo ree sa xol bi moo bon moo tax na ñëpp ree laa <laughs> gis ngeen Sénégal li may ñaan Sénégalais yi def ma leçon de morale à personne waaye li may ñaan Sénégalais yi mooy ñun ñëpp nañuy góorgóorlu di jàng xeex lu suñu yoon newul su ma nee lu suñu yoon newul nag mooy loo xam ne du suñu intérêt personnel immédiat parce que lu bëree bëri bëri ci Sénégalais yi balaa ñuy mën a yëngu rek mooy la ñuy def ci loraange dal na seen kaw. mais tant que dalul sen kaw les mêmes ñoy nek di yuxu di xex ñom gi mari Sagna ñom Ousmane Sonko ñom mais dafa melni ni li ci bëri du yëngal Sénégalais premier mandam, ku bokk PDS duguna na kaso. deuxième mandam ku bokk Pastef sa ben tank nga ci kaso bi rew mi rek ngay wax sa xalat saga wo ken, doro ken jote wo ken dara korom mu ne la Macky danal tej da mel ni nit ñi xam nañ ko rew mi mom dalu injustice bi metti na nit ñi lo def ñu tej la ku saxat ñu tej la mo fi nek sanction bi ñu ko sanctioné timit bu koy sét lu ko ko tek bay boo mu dem xolé ko justice lolu mo am ni ngeen ni tëjee nit ñi dafa metti in deux pipe tëj in deux pipe tëj te barki dembu deg na fi ñu naan ci gannaaw pale ba dañ fa bay rew mi ndegam gor yëpp nga ci kasso bi ku dugg da nga wara a sa bop <laughs> waaw mais nak mais nak te ngeen gi mari Saña nek na député te ngeen Sonko nek na député nek na maire te ngeen Ahmed Aydara nek na député te ngeen Abdou Bara doli nek na député te ngeen Biram soulay manam yeen ku ngeen tej mu falu fa tej len rek xola yeen japp ngeen ngeen da ngeen da ngeen réduire PDS PDS kep ku fa Macky Sall defon ku fa Ablaye Wade defon defon defon ministre dem na APR mel num Khadim Gueye mo fa dess ben ministre kep ta tay am nañ 24 député Lalu mo leni wax ne du ngeen yalla du ngeen yonantu seen décret mok mok journal mbedd yi ñoo du ngeen yalla de dogalu len dara denga nga lalai la lay wax kenn yeen montre bu amul heure lañ bo togon fi seen sa montre ñame na la wax ne la 4h ci ngona jot fek way bo génnee rek xamne dara xewu ci yeen ak nit ñi penkook soowu ngeen nek bay bo ngeen defaru wat ta wax Macky Sall ne ko bu bëggee fal Sonko na fi laaj troisième mandat président bu amul deux bu demul deuxième tour ngeen fi gis loolu moom baye boo ngeen xam ko baye boo ngeen waxtaan ngeen jël Amadou Ba wala keneen teg ko ci ngeen dem bu ngeen bëgg dem fenn